salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV leen nuyu leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi taamu sa revue de l'arène fii ci Leewtoo TV di ko suivre chaque matin ñu leen koy indil Mbaye jërëjëf Ndeye fay naa la maa ngi nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen fàttali nag huile moo leen di may seen revue de l'arène bi ñu leen di amal chaque jour fii ci Leewtoo TV huile Jador nag mooy huile bi nga xam ne moo gën ci diwlin yi. Assane Waalo ne Mbacke maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu également internet bu TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom. comme ni ko Mbaye waxee rek Ibrahima Jador moo ñu may seen revue bi chaque jour fii ci Leewtoo TV jeudi 4 mars 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam mu njëkk Pikine Guédiawaye en attendant Balla Gaye Guy gi Ama Baldé booy ñaa 2 Lac de Guiers Eumeu pour baliser la voie le 4 avril. mu mel ni ñoom ñaar ñooñee ñoo war a ubbi yoon wi avant yeneen punkal yi di yegsi ku ci mel ni euh, Lade ku ci mel ni bal Gaye Ama Baldé Modou Lo ak euh, yeneen ponkal yi nga xam ne war nañoo bëri ci sa saison bi ñi war a ubbi baal bi mooy Lac de Guiers ak Eumeu seen incha allah bu ci yàlla àndee Assane le 4 avril. dëgg la Mbaye Babacar gox yi di Pikine ak Guédiawaye mbër yu fa yeewoo muy Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers journal suñu làmb nee na ndax dinañ xàll yoon wi le 4 bi en attendant combat war a dox ci Balla Gaye ak Bombardier Gouye Gui Reug Reug Boy Niang 2 ak Tapha Tine suñu làmb daal ne Eumeu Sène ak Lac de Guiers war a baliser voie pour que ñoom Balla Gaye bu ndikkee mottali li ci ba léegi journal suñu làmb Mor Ngom batteur d'Eumeu Sène ça sera difficile de battre la tam-tam dans un cadre clairsemé. mi ngi noonu Mor Ngom moo yëkkati yooyu la kàddu Mor Ngom nag yaakaar naa képp ku yëngu ci làmb war nga koo xam. tëggkatu sabar la tëggkatu làmb la mooy tëggal champion bii di Eumeu Sène moom li mu wax nee na anam bi ñu nar a amale làmb muy huis clos bi dana jafe trop trop ñun tëggkatu sabar yi ñu yëg liñ doon yëg bi ñuy tëgg ndax huis clos bokkul ak làmb ba nga xam ne stade bi day fees dëgg la Mbaye Babacar Mor ngoon comme ni nga ko waxee moom mooy battaaru Eumeu Sène moom nag day topp lutte simple yi di tëgg tëggkat bu mag la moom nag li mu fa wax journal suñu moo ko xëy dala li mu fa mooy que ne dina jafe trop ci huis clos bi ñoom battaaru tëgg ak si stade boo xam ne nii ay nit nekku fa waaye nag nee na nga ubbi ngay tëgg euh, ci stade bu dara nekkul moo gën ñu bañ a ubbi làmb ji waaye wax na également ne dina dina métti lool waaye à défaut de sa à à défaut d'avoir mu ne Euh, au lieu que ñuy toog sans ñu def dara euh, boo amul li gën nga am li fa sës dans la galère leur poulain dans l'opulence faut-il plaider pour les coachs des lutteurs coach yi nga xamante ne bii ñoom ñooy coach sa mbër yi ku nekk xam na ne boobu ba léegi euh, mbër yi bëriwuñu te bu mbër yi bu ñu bëriwul ñoom tamit du ñu mën a coach sa mbër yi ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe ya nga xam ne metti na trop ci seen côté li ko waral nag mooy covid 19 bi dugg ci àdduna bi dëgg la Mbaye Babacar dans la galère leur plein dans l'opulence noonu la ko journal suñu wax euh, làmb waxee maanaam bu mbëri VIP nekkee di lekk seen million euh, seen ko yi moom ñu ngi nekk foofu ci euh, situation yu métti noonu la ko journal suñu waxee làmb waxee nee na nag côté yi ñu ngi ci situation yu difficile difficile trop trop sax nee na boo demee ci écurie yi ñu ci gën a ñàkk xaalis wala ñu ci gën a poos seen ñi nga xam ne seen poos ñoo ci gën a oyof yi ngay dem directement mu ngi noonu ca loolu nag ka ca àddu mooy Mbaye Diallo mu ne aucun coach des VIP n'a un n'a de voiture ni de villa. moom moomu di mbay Diallo moom moo jiite coach yi nekk ci Sénégal moom nee na coach yi ñu wooyee coach yi nga xam ne ñoom ñooy coach VIP yi amul benn coach ba nga xamante ni bii wàllu coach coaching bi am nga ci kër wala nga am ci oto. dëgg la Mbaye Babacar waaye avant ñu ci ci loolu rek euh, Fass dafa def benn stratégie pour permettre ay coach am ñoom ñu mën a gagner dara ci cachet lutteurs yi ndax Fass lutteur bu fa nekk booy amee combat dañu jël sa cachet benn benn pour jé séddale ko coach yi ak managers yi waaye comme ni nga ko waxee mbay Diallo moom mooy président ANELS ANELS mooy association national des entraîneurs de lutte du Sénégal. Ah. moom lay wax mu ne euh, amul benn coach wala entraîneur boo xam ne da nga koy gis mu yor benn villa wala oto. nee na kenn ci ñoom amu ko te nag ne nee na ñoom ñooy tàggat mbër yi ba ñu am ay millions jot na nag mbër yooyu gestu leen mën leen a boole ci affaire yi. am na solo jot na mbër yi gestu leen ndaxte mbër. yaa coach bi ca ba ngay doon xale ba ngay doon tout tànk boo demee ba dégg daal yi bay fayee koy million waroo koo fàtte. dëgg la Mbaye Babacar gis naa nag euh, Modou Lo defoon fi benn geste ak euh, coach am muy mm-hmm. bu ñu defee jàppale leen ci yenn affaires yi dina baax trop ci ñoom. kon Modou référence la ci coté boobu ñu ñu bari nañu roy ci moom. Mm-hmm. nañ jàppale coach yi dernière sortie en 2013 Issa Pouye porte d'histoire le caïman de Thiaroye sur mer sous les eaux. jësig bi nekk fële ca caaro yi nga xamante ne bii mooy wuyoo ci turu Issa yi depuis mille 2013 ba léegi kenn gisu ko ci làmb ji réer na mër kenn xamul ci lan la nekk boobu ba léegi. dëgg la Mbaye Babacar dernière sortie Issa Pouye 2013 la woon euh, plus précisément le 2 juin 2013 boobu sax moom moo doon dajeek Rock Mbalax combat boobu sax daf ko daane woon mais boobu ba léegi daal Issa yi kenn gisatu ko ci làmb ji suñu ñu làmb ne ne de caaro yi bii daal. réer na ci ci ci ci ndox mi waaye nag euh, depuis carrière am euh, Issa Pouye jot na am 17 combats 10 victoires 7 défaites. Issa dafa bàyyi wala bàyyiwul. non bàyyiwul dafa amul combat rek mais lu ci mi ngi continuer carrière am toujours. kon promoteur yi war nañ koo seeti pour mu tooylaat xaftaanam ñëwaat ci làmb ji. jot na nag waaye manqué na compétition depuis 2013 ba 2021 compétition xam naa ne pour mu ñëwaat du yomb. juróom-ñetti at ya nga xam ne bëriwul. xale yi màgg nañ fi de bëri doole MMA lañ jëm pa Sène combattant en France. mu ne Reug Reug a des chances énormes pour réussir. ki yëkkati yooyu la kàddu mooy Pape Sène fële ca France la ko yëkkatee nag foofu la nekk nekk ka nga xam ne day yëngu ci wàllu sport de combat moom nee na Reug am na ci moom yaakaar bu baax a baax te it gis na ni mën naa réussir ci sport bi mu dugg muy MMA. dëgg la Mbaye Babacar Pape benn sénégalais la bu nekk France di yëngu ci MMA moom nag li mu baax moom mooy Reug am na chance yu énorme pour mu réussir ci MMA waaye nag nee ne chance yooyu pour que Reug am ko il faut que mu am benn staff ak manager baax a baax a baax boo xam ne nii moom mooy toppatoo carrière am fii fu ci MMA ah. wax na également ci li nga xaalis bi MMA di buy génn ci MMA mais na pour que nga mën a gagné xaalis ci MMA il faut que nga am ay sponsor il nga am ña nga xam ne ñoo lay gunge ñoo lay gunge di la sponsorisé maanaam ngay sol seen yëre wala ay casquette wala dàll wala yu ni mel ñoo loolu moo lay permettre nga am xaalis mais pas euh, cachet bi dëgg la Assane mu ngi noonu Gambien de depuis Rio au Brésil Jebel Lirou Diane mu mel ni waaw dawul coow de. Gambien de moom fa mu dugg nag dafa mel ne fa mu wokk xesen na ma nga fële ca euh, Brésil benn dëkk bu ñuy wax Rio foofa la toll yëkkati kàddoom moom daal nee na ki ko teree nelaw fi mu toll nii ki mu bëgg a jëflanteel mooy liiru jaan ku nekk nag nga bëgg a bëreel Assane koo bëgg a bëreel yow <laughs> wala micro bi nga bëgg a bëreel ak caméra yi. waaw mooy toog di seetaan. <laughs> ayca mais Babacar ni nga ko waxee noonu la. Gambien Gambien Gambien 2 moom mu ngi nekkoon Caaroy Géej waaye dafa jógee dem Mbour montagne moom nag li mu wax moom mi ngi brésilien sans bi nii li mu wax moom mooy. Euh, liiru jaan lay tëkk moom daal la bëgg a waaye wax na nag foofu ñu nekk ci Brésil li leen lan mooy li seen anti stress foofu. Ah. mooy que dañuy organiser ay gala di di mbapat loolu daal moo buñ amee buñ liggéeyee ba wàcc. foofu la ñuy demee pour génne seen stress yu nam. ayca loolu am na solo désiré de se relancer sa carrière Diankalaar face à un grand défi. mi lay nga xamante ne bii macha allah euh, bëgg-bëggam wax na ko ci biir journal bi moom daal nee bëgg-bëggam du lenn lu dul ñëpp ràññee ko ci làmb ji mu relevé défi ba nga xamante ne bii défi bu am doole lay doon. dëgg la Mbaye Babacar Diankalaar ñu gënoon ko xam ci Sokh léegi mu changé turam tudd Diankalaar moom nag li wax nee na dafa bëgg relancer carrière dernier combat bi mu fi defoon daf ko pertoon mi ngi ko pertoon euh, ci diggante yëpp euh, mbeng mboor loolu mi ngi xewoon le 16 février 2020 boobu ba léegi amaatagul combat waaye daal nee na mi ngi xaar combat te lim bëgg muy relancer waat combat te loolu pour mu am il faut que prochain combat mu daaneel. mu ngi noonu ah, face à face le 10 mars incha allah entre Tyson de et France. ñoom ñaar ñu war a jàkkaarloo ku ci nekk wax sa morom ni nga war a jëflante jëflanteeg moom incha allah bu arbitre soufflé ba génn seen diggante muy dox ci diggante Tyson 2 ak Franc incha allah le premier mars ñu war a def seen face à fas dëgg la Mbaye Babacar euh, Tyson de ak euh, Franc ñu war a def benn face à face le mercredi 10 mars 2000. 21 fu mu amee mooy ci locaux Equivox Equivox nag moom mooy benn structure boo xam ne day tëgg combat Vox Arena la jiite mu koy def ku ko jiite nag moom mooy Alioune Badara Diouf. Mhm. moom nag tëgg na ay combat yu bëri te face à face boobu euh, dina fa nekk ak euh, ak. Euh, Tyson 2 Tyson 2. waaye Mama Lamine ak Garga 2 tamit dina fa teew Noiro Moustique Alliance Balde caatu Ngéwal waaye Fourière ak Baye Mandione Junior également dinañ teew face à face yooyu. mu nar a nekk journée bu neex. journée bu neex la le 10 kii bi euh, combat bi mi ngi ko prévoir le 10 mai. incha allah bu ñu ci yàlla yow mhm. journal record lañ dem souvent indiqué pour effacer ses défaites Baye Mandione redonne le sourire à Gris Bordeaux Modou Lo et Boy Niang 2. ñoom ñett ñooñu ku ci nekk am na foo jaar ak kii di Baye Mandione 2 bëre Baye Baye Mandione nga ak Baye Mandione daan ko muy Gris Bordeaux di euh, Modou Lo ak Boy Niang 2. dëgg la Mbaye Babacar journal moo ko wax nee daal mbër yi muy Gris Bordeaux. di Modou Lo di Boy Niang 2 ku ci daanu rek ci bàyyi ma ñoom ngay demee pour relancer sa carrière nee na Modou bi ko Balla Gaye daanee ci bàyyi ma njoon la dem pour relancer waat carrière am am benn victoire pour demaat nee na également Gris ba ko Eumeu seen daanee ci bàyyi ma ñoon la dem pour relancer waat de même que Boy Niang 2 bi ko Zos daanee ci bàyyi ma ñoon la dem pour revenir en force mu ngi noonu Assane Wala la jaajëfalaat bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi mbay leen di leen dig daje insha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm Assane Wala jërëjëf Ndeye u Leewtoo TV di remercier waa Linguère remercier Yacine Fall Fama suñu internet li ñuy suivre li nga xam ne mooy revue de l'arène chaque jour loolu moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar yi di am contentement sama équipe technique bi ah Ousmane Matou Fama Yacine di bëggee Assane Waalo ak Mbaye Babacar bu baax a baax di bëggee suñu internet yi di leen jaajëfal nee naa revue bi nag seen huile j'adore moo leen koy may chaque comme ni ma leen ko waxee rek mooy durin bu gën ci durin yaa ne jigéen ñëpp dinañ ko consommer ah si réew mi lañ ko defaree jaajëf leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV